bi mooy final normal ku ci daan yaa jël drapeau chef de l'État 2021 fii ci Kaolack dox ci diggante Thiès ak réseau de Diourbel Thiès moo ngemboo ngemb lu rouge li moo ngemboo ngemb lu weex li ceinture moo ngemboo ngemb lu ñuul li dox ci diggante booy fay ak Libidor ndaysaan ñu ngi noonu Boy Faye moo représenté Diourbel Libidor représenté Thiès ñoom ñaar ñu ngi noonu ci finale drapeau chef de l'État bi ku ci nekk sa équipe am na ñaari ndam muy 2-2 actuellement ñoom ñaar ñoo ci des Boy Faye mooy libéré Diourbel wala Libidor mooy libéré Thiès dinañ ko xam léegi waaye en ñoom ñaar ku ci daan sa li nga xamante ni mooy raison bokk ko wala yow yaa ko jox ndam li tax mu am ko. ndax actuellement 2-2 la ci compétition bi daw na jëli ko ndaysaan booy fay ndaysaan ak libidoor ñu ngi noonu ci compétition bi ndaysaan booy fay libidoor ndaysaan booy fay libidoor ñu ngi noonu fàqat na ko bañ na ndaysaan du yomb ndax final la ñuy bëre ñoom ñaari xale yi ndaysaan kii teewoo raison de Thiès kii teewoo région de Diourbel ñoom ñaari xale yi fàqat na ko Libidor fàqat na booy fay sol na ko mu ngi koy fàqataat mbokk yi ma leen xamal trois bi jël la ci drapeau chef de l'État amul jàpp ngemb Libidor Boy Faye jël na tànk bi daan na ko Boy daan na Libidor Boy Faye daan na ko drapeau chef de l'État Diourbel jël na ko Diourbel jël na drapeau chef de l'État ndeysaan su ko ne